asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki julli di ñuy seetaan te ñu déglu ñu ngi leen di nuyu baax te di leen ziyaara di jiital ci nuyu bi ak ziyaar bi ñaanal saahibul fadila cheikh mamadul muntaxa yàlla na ko suñu borom yàggal te may ko wér defal ko njaboot cheikhul xadim gi yëpp di nuyu itam uh, soxna maam isa mbàkke ahlu kafe mi nga xam ne moo jiite liggéey bu tedd bi di liggéeyu fédération ahlu kafe ñu ñëw fii tey nag ci guy ci naan nekk ci liggéey bi liggéey bi nag liggéey bu yaatu la ndax ku ne xam na ne mbooloo mi fi war a daje kenn xamul nu mu toll euh, ñooñu nag day am loo xam ne dañ koy ittewoo bokk na ci li ñuy ittewoo mooy ay xiwal yoo xamante ni bii munta ñàkk ci doomu aadama boo xam ne day dund euh, rawatina nag café Touba gi nga xam ne moom bépp murit bu xëy daf koy bëgg a naan euh, café googu nag fàggu nañ ci lu baree baree baree bare loo xamante ni bii juróomi fan ci ginnaaw ñu ngi fi te danañ fi nekk incha allah ba samedi bi E, di ko segg di ko yóbbu ci biir jumaa ji waaye di ko yóbbu ci li wër jumaa ji waaye di ko yóbbu tam ci dal yi waaye murid yi nga xam tam dañuy jaar di jàll ñoom itam ku ci ñëw rek mën a naan café Touba loolu mooy li nga xam ne mooy liggéey bi fii tey lépp nag ñu sante ko Cheikhul Khadim rek ndax liggéey bi moom Sëñ Touba moo ko liggéey coono bi yëpp dafa mel ni moom moo ko gàlloo ñun moom ndam li rek la ñu yor ak xéewal yi ni mu ko waxee woon rek nabatu ko maan ala kadin bada lii xabla an arade dan mu abada loolu rek mooy li moom nee na dafa demoon liggéey coono bépp moom la Euh, ñun nag noflaay bi rek lañ am kon nag ñun li ñuy sant sëriñ bi mooy mel ni mu bëgg ñu mel ni ak lu mu bëgg ñu defal ko ñu mën koo defal loolu nag mooy taxawaayu fédération ahlu café nekk ci liggéey bi di xidma ngir rek ndamu cheikhul xadim li nga xam tey moo yëkkatiku jolli ca kaw te dootu suufe mukk ni mu ko ñaane woon boromam darajati taalu walay sa tan xafil wa man naha minal wara xaf di xufil sama daraja man Cheikh Ahmad Bamba day yëkkatiku di jëm kaw te képp ku namm mu suufee yàlla dana la suufeel ba kenn dootu la gis loolu rek mooy li nga xam ne moo feeñ tey yaakaar naa ne mbokki taalibe yi ñu ngi koy wax dafa mel ni rek dañoo jël tey Touba cëppeel ko Ndakaaru loolu nag mbirum Cheikhul Khadim la kon nag yàlla nañu ko yàlla fayal euh, taalibe yi itam gis nañ kenn ku nekk yéene ji nga am ci sëriñ bi yaa ngi koy feeñal bu dee jëf la bu dee wax la bu dee joxe la ci xeeti ñam ya xeeti bernde yi te loolu lépp dafa bokk ci symbole yi nga xam ne mooy dëgëral ak murit kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla lépp luñ ci liggéey daj ngërëm Sëriñ Touba te yàlla yàggal fi Cheikh Mamadou ndax jëwriñ la ju jëwriñ joo xam ne Serigne Touba rek a ko ñor li mu waxoon ne nañuy jaamu yàlla di ko liggéeyal Serigne Touba tey liggéeyal Serigne Touba di ko jaamoo yàlla ñaar moo fi nekk ci loolu la nekkoon nag yàlla ñu ko yàlla fayal ñu ngi leen sant baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah